Assalamualaikum, mbokk yi yéen ñuy teewlu DBT ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. di ñaan ku abonné gul nga abonné te nga bës kolos bi loolu mooy tax vidéo bu dugal nga jot si ci tàng tàng bi. di indiwaat euh, tuuti say information ci suba gi ak loo xam ni xëy na biig la xew mën nañ koo tàmbalee ci Iran di wax ni démb sànni nañ ñaari satellite yoo xam ñu ko sànni fële sa réewum ci benn camp bu ñuy wax phosphate sini wala ko Iran sànnee loolu nag day wéral di dëgëral euh, déggoowu wa Iran ak Russie loolu day bok ci li koy wéral euh, satellite yi nag euh, benn bi mi ngi tuddu xut xut benn mi ngi tuddu kawsar Iran nag si fàttali daanaka sen missile yi ñuy jëfandikoo wala sen avion de guerre yi yi ci ëpp dañ koy tudde ay ay dañ koy tudde ay tur yoo xam ne si islaam la daal si islaam la soxi ko walla islaam lañ ko xamee yu ci bari turu islaam lañ ko jox loolu di lu am solo kon ñaari satellite yu ñu sànni benn bi xut-xut la tudd xut-xut nag moom yaakaar naa ñu bari xam nañ histoire am maanaam mooy picc moom ñu tuddee Moussa Ndioubouré te rafet lool Moussa Ndioubouré si olof am na ñu koy wax Moussa Ndioubouré picc moom moom daanaka dañuy wax ni sax xale sax boo boo bu dikkee injil la ko maanaam na nga xam ne kii ku kuy ku yeewu lay lay doon daal dafa picc mu yéeme la ndax ku déggu jamonoy yontu yàlla Suleymaan am na information yoo xam ne moom moo ko doon indil hmm, biñ waree am fump bi sa yontu yàlla Suleymaan dajalee armée beeg ñi mu war a àndal ñëpp nga xam ni rab yëpp war a ñëw Moussa Njubur yi moom dafa ñëwul biñ gëstoo laajte fekk ma nga yemen Bim dikelakoni dikkee la ni indi naa la information boo xam ni ca Yemen gis naa fa ñoo xam ne weer ak jant bi la ñuy jaamu kon tur woowu ñu ko tuddee moom am na solo lool di fàttali tamit ni waa waa Liban am na benn drone bu sànni woon jamono yële xaw naa yàgg nga xam ne drone bi dem na ba dugg biir Israël fépp fu Isra Israël dafay installation mu lay kaamam nekk dem na ba filmé ko foté ko dikk jox leen information yi te Israël ñoom it drone boobu xutuwut lañ ko tuddee Moussa Ndioubure muy am solo ben bi ñu tuddee ko Kawsar mi ngi noonu ci camp bu ñuy wax phosphore sini ca Iran ca Russie fa ko wa Iran sanni loolu démb la si biir loolu ñu ngi wax ni Iran mi ngi wajal timit fayu gi nga xamanteni mom moom la fayu ci kaw Israël. fayu gi nag euh, Iran wax na ko seen seen jilli di Ali Khamenei wax na ko ñuy wax ni missile yi nuy waaj pour sànni leen ko euh, xëy na di leen ko dugal misil bi mu ngi tudd xaybar gis nga moom itam missile boobu am na missile yu ñu tuddee Palestine waaye missile bii ñu wax moom lañu war a fayoo ci kaw Israël moom moo tudd xaybar xaybar moom ku kuy déglu histoire yonent bi da nga koo da koo da nga ko yëg ndax am na xare boo xam ne xare xaybar lañ ko tuddee missile bi ñu ngi wax ni tête bi ci nekk mu ngi posé mille cinq cent kilogrammes te it buñ ko sànnee bu demee ba war a bay ñëw day mel ne ab taw li tax ñu ne day mel ni ab taw mooy benn missile lay doon bu buñ sànni waaye bu dikkee ba jege fi mu war a exploser day mel ne lu tàqalikoo day tàqalikoo def quatre-vingts yeneen missile quatre-vingts missiles yu ndaw def tet bi mi indaale bu tassaro bu dikkee fi mo wara exploser day defat 80 missiles missile nak yoyu dana tax intercepter ko dina jafe lol ta missile bir khaybar tam Iran wax na ni mo gëna gaaw kaddu missile mo gëna gaaw kaddu lol nak xeyna na lay sax nit lu ko laaj luy lolou waye kaddu manam comme nga taxaw fe di wax ak nit bo waxe digënté bimu lay déggé ni mi gaawé nga xam bu nit ki ŋaawee ñam wax rek di dugg na sa nopp yow. gaawaay gaawaay bi wax ji daw ñeneen missile bi moo ko gën a gaaw yemul si gën koo gaaw waaye dañ ko maanaam buñ ko doon ful di ko ful di ko ful di ko ful ay yoon yoon mooy gën a gaaw missile bi gaawaayam noonu noonu la mel nga xam ne tey loolu missile bi dañ ko programmé noo xam ni intercepté ko waa àdduna bi fi ñu toll fi ñu toll nii si defar ay dôme de fer rek comme israélien yi ak caat bi Amérique moom bu mu ci manti doon rek manam euh, anti système de défense yoy manam liñu daw gawayam missile bi daf ko gëna a motax euh, missile balistique yi nga xam mom la Iran sànnoon Israël gis nan ni Israël bu ci budé budé fukki missile si gatal Israël ñaar la intercept gis def yeb wad na parce que lan li wara a li wara japp sacc bi bu ko sacc bi gënee gaw du ko japp manam si gatal si ci message légui nak missile bi nga xam mom la Iran wara fayo di ñu tuddé ko khaybar misil bi moo gën puissant misil yi sanni won misil fatah waaw fatah lan sanni won ci wa Israël neen misil bi mo gëna efficace waaw gëna gaaw kaddu euh, ful ko ci ay yoon yoon ba pare bu diké bo lay explosé day tax day tourner wa defat defat 80 misil yu ndaw lolu mom wax deug yalla lu am solo la ci wa Iran yalla na leen suñu borom gëna jappalé jàppale leen katan ba li ñuy def ñu gën diko man diko ko sa su ne ci kaw Israël ndax Amérique moom ci àdduna bi benn réew moo ko jaaxal benn réew moo ko tiital muy Iran amul beneen parce que Iran ni mu xabtaloo seen kaw te xam na Iran kàttan nañ si moom kàttan goo xamante ni bi xam na ne bis bu ko sottee seen kaw dina atteindre lu mu bëgg ndax Israël li muy def buy bombardé waa Palestine wala Liban nga xam day fekk ay bâtiment yu jàmbur yu ay julli nekk mu wàccee bâtiment bi seen kaw loolu Iran mën na ko comme ne Israël ma ne ndax Iran fi mu doon sànni misileem yi bi mu leen di songu jamono yéene misil yi fa mu ko visé fa la dal te fan ko visé fa la matériel yi nga xamante moom la Israël di xeexe fa lañ ko denc kon xam nga ni foofu kaaraange gan gan fa def defuñ ko si kaaraange dëkkuwaayu waa Israël ndax fi ñuy denc seen avion avion de guerre yi bu fa Iran mënee waddal missile mën na koo waddal ci biir dëkk bi comme niñ koy def waaye xëy na ñoom am na leneen luñ ciy xool. ba tax defuñu loolu waaw te Iran bi muy wax nii di leen ak di leen di leen di wax dinaa fay seen kaw di leen menacer yemul ci Israël waaye dafa wax ni Amérique tamit du ci mucc ndax nee na gis na ni Israël lépp lu muy def rek moom ak Amérique ñoo koy ànd kon loolu moom bis bu ko Iran dee def daal lu mu mënti doon ak nu mu ko mën a defee yàlla na ko ci yàlla may ndam comme ni mu ko woon ndam ci lii weesu. fayu gi Israël doon fayu itam Iran da cee gën a am ndam gën cee am doole ndax Israël moom ku mos a bëgg a bombardé bombardé na mu ko bëggee bu ngeen seetloo diggante daaw ren fépp fu mu naa ko bombardé bombardé na ko Iran kasa Iran kasa la jéem a bombardé limul avion yi départ bu ñu départ dugguñu si dugguñu si suufas Iran ndax seen système défense moo leen jaxase ba mënatuñoo communiquer ak ak ñi leen yi yabal ñi leen yi guidé kon loolu ndam la loo xamante ni bii Iran suñu borom defal na ko si ci songu gum songu am na ci ndam Israël song gu gum doon songaat Iran tamit Iran am na ci ndam ndax àdduna bi yëpp dëkk réew yëpp fi ne joxaan nañ joxaan nañ gëdd Iran gën nañ koo respecté waat ci lii ndax ñu wax suñu borom moom léeg-léeg buy defar day mën a lu yàq day mën a lu yàq mooy xeex bi metti na lool Iran naka jekk Amérique ak Israël dañ koy bàyyi xel ñeemewuñ ko. bu dikkee dugg ci xeex bu mel nii Israël bu amee fitu gan goo xamante ni bii Iran la jëm dem ba ca Iran dalal ko Israël dem fekk ko fa bombardé ko rey ko xëy na booba foogoon na ni moom moom Israël li mu toogaale wala même bu Iran dee fayet du am kàttanu mën a dugg ba ci biir këram comme ni mu ko ko defee waaye ba mu ko defee loolu metti na trop metti jullit ñëpp waaye bés ba Iran jógee ngir fayu ba mu ko songee Israël gàcce la sa jóge la sa jële ak xam ni moom kon ndeke Iran mën na koo suul léegi léegi léegi li bu mu jógee di fay waat gis ngeen na mujje kon metti na la am la waral fayu gi metti na lool waaye Iran suñu borom defalaat na ko ci ndam te Iran moom jàpp na ni bis bu bu gënee am doole jullit yi si àdduna bi dina gën a am jàmm ndax nag neexul ba neexul danaan Iran ay ay ay sian lan waaye nag bu dee nit mel mooy sian moom man ma man sian laa parce que ñuy rey ay junni junniy doomi doomi aadama ay jigéen ak xale rey yu ñaaw a ñaaw a ñaaw moom mu taxaw ni dina dakk ba mu jaral ko ay doomi réewam sax ñu ciy faatu ba mu jaral ko ay milliards mu koy ñàkk di jox ay dëkk man la Yemen ak Irak ñu bari mu leen di jàppale di dimbali ci ay matériel pour l'islam taxaw bu dee siyan yi noonu lan mel say boo ñëpp nekk ay siyan waaw des Arabie li mu yor ci doole waaye dafa taxaw di seetaan tappale moom ak Égypte Égypte kase kase kase mënoon naa arrêté Israël ci ni muy def kon nak Iran mom wax deug yalla jamono ji mom aduna bi ñom ñoo fi taxaw taxaway bo xamanteni bi taxaway mata bu wax la. Turki euh, Erdogan donte nak ay waxam mom boo deglu moman da nga nan mom man ci aduna mo gëna taxaw julli ni donte jambar la jambar la nak jambaram mom da daanaka rek ci yalla ci làmmiñu lu ko yamale de fi ñu tollu tembe tembe l'islam dafa soxla ñu jug nag jàkkaarloog noni xex ak ñom tek bakan tek bakan waaye du dee ay calcul yooy def xalaat bu metti bi ma defee lii lu ma ci fekk wala laa dangay wax rek donte nag jàmbaar loolu ci wax moom waaye boo mënee jëf nag lislaam néewul ngay wax rek dani boo mënee jëf boo mënee jëf boo gisee naka noonu te nga mën koo dindi ak sa loxo dani dindi ko ak sa loxo Iran loolu la def boo ko mi boo ko mënta dindi ak sa loxo nga mën koo dénoncé waaye Turquie nag wax dëgg yàlla dépassé na fu mu war a nekk di di dénoncé rek di dénoncé rek. waaw ñun ñii ñun ñii waa Sénégal ak ñi mel na ñun te ndeysaanu lool ñun ñoo toll fi ne si naqarlu si xol waaw te ñu ngi koy def waxuma naqarlu si xol waaye sunu njiit réew sax wax dëgg yàlla fépp fu àdduna bi wootee bu fa demee bu taxawee wax da nga xam ni kii moom mi ngi góor da nga xam ni kii bu amoon doole kàttan gi Iran am wax dëgg fa yàlla nag la ñuy wax yàlla rek tax ñu wax dana jëf ndax fi wax jafe dafaa taxaw wax moo tax bi mu demee Turquie wax dëgg yàlla Erdogan koo jox. da koo jox yitte ju rëy rëy rëy rëy ci jàppale gi muy gi si li mu wax ci jam jamono yëpp ci gannaaw kon loolu am solo loo xam ñu ngi koy rafetlu ci sunum réew waaye daal si gàttal daal wax dëgg fa yàlla turki moom war naa mën a weesu wax ji tey jëf comme ne Iran di jëfe waaw Iran Iran bu waree jugal boppam dana jugal boppam def la mu war a def waaye ak loolu lépp teewul mi ngi jàppale bu baax ñiy xeex. ñiy xeex ak waa Israël mi ngi jàppale bu baax ñiy xeex ak waa Amérique di jël alalam di jël ngànnaayam di leen dimbali bu baax loolu rek daanaka doyoon na waaw waaye gis neen bi mu jugee rek da ba mu jugee ba song Israël daanaka sa la jugee système de défense bu Israël sa la daanaka naax saay ban dem Amérique jëli seen caat yooyu seen système de défense ba indi waaye téewul ba léegi nii laal man xam naa Iran moom li mu sànni Israël du ay missile kese jaxase na seen système de ba nga xamante bii. barki démb ñu ngi gis benn drone boo xam ne mu ngi xaw ma fan la jóge nag soit euh, Liban la jóge wala mu jóge ci yeneen xeexkat yi waaye mi ngi daw ci biir Israël ñu ni mujjuñ ko mujjuñ ko mujjuñ ko sax intercepté dafa mujj xalankul boppam naan seen jaww ji moom jamono ji moo gën a yaraaxub tama ab tame tame loolu moom lu wér a taw te loolu mi ngi am ginnaaw bu Iran defee attaque bi ci moom boobu la am boobu lañ ko seetlu depuis boobu ba gis nañ ni pour ñu intercepter dara lu jafe-jafe la euh, Hezbollah jamono yi def na fa bombardement boo xam ne seen dôme de fer bi si boppam lañ bombardé mooy li war a li war a intercepter missile bi loolu la waa Hezbollah bombardé ban génnee ko nii. moo tax Iran daal moom say boo ni ñuy ñaanale waa Palestine ñu koy boole di ko ñaanal waa Iran yàlla gën leen a taxawal te gën leen a dëgëral ba saay-saay yi noonu yi duñ mën si si moom dara ndax bis bu buñ ko daanelee moom. daanaka rek mën nañoo wax l'islam moom pare na ndax fii ñu toll nii nii nii nii tembe tembe maanaam gars yi dañoo taxaw dañoo taxaw temm temm ngir ngir l'islam am am am toroxtaange te loolu nag dañ koy jaare si dëkk yu ndaw yu mel ne ay Liban ak i Palestine yi nga xam ñoom ñoo leen man di leen di leen di leen rayandoo ñoom bu ñuy rey Israël bu ñuy rey fi mu toll nii xale yi da leen yi rey comme ni ñuy rey mag ñi parce danaan xale yi ak mag ñi ñooyam ndax ñom Yahya Sinawar ak wa Hamas gi ay xalé la non ta ñom ñoo mag leen def ni ñi def moo tax ñu sawar lol ci rey xalé ndax neena xalé xale yi dund xam nga loolu moom fa la fa la mbonteyam fa la ñaawteyam fa la musiba yam moo tax loolu yal na suñu borom gëna taxawal ñom waa Iran tay tey daanaka waxtaan lu ci ëpp ci ci ñom lañ ko jëmale won bu jógee ci loolu ñu dem ci Liban canal 12 canal 12 bu Israël mi nga xam la ni amna 70 missiles yun sànni mu jëm euh, mu jëm Israël soixante-dix missile sànni ko mu jëm Israël loolu nag démb la woon ba jamono ji muy am ñi ngi doon wax armée ñi ngi doon waaj pour intercepter yooyu ba tey nag xamaguñ lu sa tukkee waaye loolu armée Israël ñoom ñoo ko yëgle woon maqaawama mu muqaawama bi nekk Irak ñoom ñoo ànd ak waa Suria Syrie sànni ay drone tamit mu jëm Israël ñaari ñaari kuréelu xeexkat yooyu ñoo ànd def loolu yal leen ci yàlla may ndam bu rëy di wax ni mm, waa waa Hamas fan yi seetlu naan seen tactique loolu ne ñu ngi koy jàllale démb seen xibaar yi sax waaye dafa nekk lu neex loo xam ñoom dañuy bëgg toujours di si jaaraat am na ci vidéo boo xam ne moom liñ koy seetaan xanaa bari na lool ndax ndax ndax neex gu ñu neex mooy vidéo bi nga xam ni ab char de combat la ñeenti israélien daw dugg ci ñu bombardé ko mu tàkk ñeent dugg ci te am na te mi ngi doon mi ngi doon dox kon am na keneen ku nekk ci biir ñu wax ne waa Hamas dañoo changé tactique bi ñu doon def ci xeex ak euh, waa Israël mu fële ca. bande Gaza fu ñuy wax mu xayam jabal ya foofu daanaka li ëpp ci jamono ji ñuy faatu ci waa Israël foofu la ñuy deewee daanaka fu ñu déggee ñu nii rey na nangami soldaar rek foofu la ñuy waxee fa lañ leen reyee te ñu gis ni rey gi fan yi moom ni mu tare ci armée Israël octobre bi ñi ngi doon wax mooy octobre mooy weer bi gën a metti ci guerre bi waaye gëm na ni novembre bii mooy gën a tar ndax ni mu tàmbalee moom dafa neex lool ci jullit ñi neex lool ci waa Hamas ndax li leen yi reyee dafa dafa jege ba pare dun rey par kenn léegi waaw boo xoolee bërki dem vidéo bu ñu gisoon benn waaye tiire kenn ci saa si tiirewaat fa kenn reyaat kenn ñaar ñëpp yooyu bu naan am ñaare même bu daan nekk mbooloo kenn ki rek la ñuy rey man xawma seen fetal yi dadul nekk automatique xawma nu mu demee mais ñaare bu ñu jamee kenn rek ñu dañuy da nga gis sax ñeneen ñi taxaw fa di ko jéem a yëkkati waaye duñ tiirewaat waaye bërki dem da ngay ñu tiire gaaw tiirewaat reyaat keneen ki lolu mom nek lu neex lu am solo lol ñu wax ni wa xama seen xex bi eh, mu xayam jabal ya dañ ko miné ay ay ay bombo ay bombo dal yu am solo lol ta am doole lol lañ lañ miné da naka seen mbedd yu bari fof lol nak am na rapport bu ci wa Israël def wax ni li li manam ñom gis nañ ni bombo yi nga xam mom la wa Hamas def bari na bari go xamni ni Israël mënuñ ko jéggi mënuñ ko jéggi dal di jaar di dem fenn mom loolu ñom loolu lañ wax voilà moo euh, euh, loolu sarde euh, de combat bii ñuy wax Milkafa ci lañ ko ci la ci la tàkke woon démb ba ñeent ñooñu nekkoon ñu daawoon dugg ca dañoo wax ne ñoom bu njëkk dañuy yor ay Yaasin 105 bomb bu am solo sax waaye donte ñu ngi koy yor bale léegi waaye dañ see boole miine miine mbedd yëpp moo tax jamono ji wax dëgg yàlla rey gi bari na lool lool lool ci waa Israël ci armée Israël ñu ngi ciy faatu faatu gu métti. di len fatali batay yene sen youtube dbt di ñaan bo abonné wul batay man nga abonné te bës cloche bi jërëjëf ñu continue wax na ni euh, dembu israël def na ñaari attaque ñaari attaque ca liban yooyu nag xamagun lu fa tukkeegun gun amna benn dëkk benn ville bu mag bu nekk fële ca libye dëkk ba ñu ngi koy wax Assawiya dañu faa def si bunt bi benn benn tableau daal publicité yi gars yi taf si mbedd yi di si def seen photo yi wala ay ay lu ñuy publicité comme yooyu lañ fa def def ci ñaari ñaari jëmm kenn ki am mag la mag bu màggat ku ñuy wax Omar keneen ki ñu def ci Yaxya waar ñu ni ñu bind ca ni ñun fekkewul buñ fekkewul jamono Omar Moxtaar tamit nga xam ni kooku jàmbaar la woon di xeexkat boo xam ni euh, wax nañ ñu moo sos Hamas daan toog si puus puus boo xam Israël bi mu koy rey si puus puusam la ko sànnee bomb ñu bind ci ni fekkewuñ jamonoy Omarul Muxtaar waaye fekke nañ jamonoy Sinwaar nag dem na waaye bu ne fekkee nañ jamonoom jamonoom itam wax dëgg gis nañ ni moom liggéey na fi liggéey bu bu yéeme doo ko dem ndeysaan waaye yaxee Sinwaar ba octobre set octobre attaque bi gars yi def wax na ni moom moo ko planifié lépp moo ko moo ko moo ko def loolu Israël wax na ko te loolu nee kenn kenn weddeewu ko te li ci gën a yéeme mooy démb joxe na ko suñu information yi ñu ni waa Hamas mat nañ mille seen soldats yi toujours danañ entraîné rek di jàng li war a jàng waaye nee nañ opération bi biñ koy def maanaam waxuñ waxuñu leen ko waxuñu leen dem nañ ba ba war koo def ba nga xam ne ay waxtu ay waxtu yu néew ñoo def. ñu dégg ko ñu doog leen koo yëgal nga xam ne ba leen ko yëgalee ñoom ñëpp a taxaw ngir dem defi attaque boobu nga xam ni njàmbaarte googu ak ak ak jom jooju kenn ragalu si kenn dellu si gannaaw boo koy xool danga koy da koy dëppale ak waa Badar bi ñuy dem di di dabi njëgg ma njëggum Abi Sufyaan ma nga xam ne ba ñuy dem dem pour xeex taxutoon ñu jug demu ñoon pour xeexi pour dem xare ndax bari nañu des màkka waaye dañu noonu dem pour dabi nangu ji alal ja ñu dem ba àgg alal ja raw na guerre bi taxaw na xare bi taxaw na waaye ñoom ñëpp a songu leen moo tax yàlla may leen ca ndam waaye loolu itam moo tax Hamas seen néewaay baag seen ñàkk door kàttan jaag nan tuutee ban songee Israël itam am nañ ca ndam lu rëy donte rey gën a fële ëppee waaye ndam lu rëy leen fa am kon nag mbiri suñu borom la ñu wax ne loolu lépp Yahya Sinwar moom moo ko planifié jëfam la ndeysaan Israël démb xaw ma barki démb nee nan bi ñu ko defee autopsie ci kooram bi gis na ni avant muy faatu toog na ñetti fan lekkul sa ñetti fan lekkul ba pare mu yor ngànnaayam di jàkkaarloo gars yi di di rayante ak ñoom jàmbar dëgg mi noonu ku mat di fàttaliku la te xam naa kooku àdduna du ko mës fàtte moo waral ñu bind tableau boobu ca Libi wax ni fekkewun Omarul Muxtaar waaye fekke nañ jamonoy seen Nous avons ñi ngi wax ni euh, bande de Gaza am na vidéo sax vidéo bi da nga gis ñu taxaw dessin drapeau Palestine ak Japon dafa am benn activiste boo xam Japon la dëkk mi ngi ci mbedd Japon yi nag yor ab des euh, carton pancarte di ko di wax ñu ni Japon dong lañ fa muy di manifester di dénoncer Israël di def Palestine moom képp lañ gis mu ko fay def japon gépp te loolu ba mu ko dalee def ak léegi am na atum lëm atum lëy lëm saa yu xële xëyee na ci mbedd yi moom la xale yi ndeysaan di kañ di ko jaajëfal di ko remercier ba koy dessiné ndeysaan kooku budul jullit yàlla na ko yàlla dimbali mu tuub lu am solo am na benn benn mag mag la jigéen la benn soxna su mag la su nekk Palestine sa bande de ndeysaan dafa jooye jooye jooye bu amatul ay rangoñ ndax euh, Israël démb bombardement yi mu doon def donte élection américain yi tay la waaye teewul saay-saay Amérique ñi leen di jàppale pour ñuy def yi ñuy def ñu ngi wëyal di ko def ba léegi bombardement yi ñu def démb nag mag nii doomam daf cee faatu benn doomam bu góor muy jooy di wax ni sama doom faatu na ci ak ak soxnaam ak ay setam ñoom ñëpp rey nañ leen ci bombardement yi muy lu metti te daw yaram mag mu dem ba àgg fii ba màggat ñuy rey sa doom di rey say sët ak ci ak soxnaam loolu metti na Al Jazeera jëlee nañ ci source bu ñu wax ñu ni Israël def na tey jii talaata ci talaatay tey jii ci fajar gi Euh, baytilaax ca baytilaax yaa ca Gaza dëkk bu ñuy wax baytilaax yaa def na fa bombardement boo xam ne vingt cinq personnes faatu nañ si waaye fukk ya ak ñett ay xale lan am na beneen source tamit bu wax ni tey jii Israël Israël def na tamit bombardement ci ci Gaza ba trente sept personnes faatu ci 24 yi mom sa Gaza lañ faatoo xëy mom 24 yi moom mooy tolloog 25 yi ñu wax ni faatu nañ tay ci fajaru tay gi nga xamni Israël mo fa def ay bombardement ba 13 yi nek ay xale waye li ci benen source la bo xam ne 13 37 personnes ñoo ci faatu 24 yi sa Gaza la fa lañ fa fa lañ faatoo di wax ni tay la élection yu Amérique talata waye ak lool lépp ñi ngi woy di jàppale wa Israël ñi def seen jëf ju bon ju ñaaw ñi nga xamne mom lañ dekk di def ñu ngi wàccee foofu kàddu yi di leen jaajëfal te di leen ñaan ngeen abonné ci chaîne bi te di ko yaatal di ko partagé ndax liggéey bi gën a yaatu di ko aimé waale tamit ndax dina tax YouTube gën a partagé vidéo bi jërë ngeen jëf ba beneen incha allah. TBT TV di leen indi lépp lu ngeen soxla ci wàllum information moo xam ci biir réew mi la wala bitim réew di ngeen koy man di am en temps ngir mu mën a jàppandi abonneel fii ci seen bi te nga bës cloche de notification bi loolu mooy tax bépp vidéo bu dugal YouTube dina la envoyé notification bi DBT TV ba tey di leen wax ni ñoom man ci wàllum événement képp ku am programme bëgg ku la ko defal en direct wala ñu filmer la ko publier la ko contacter ñu.